sedd bii di ko congelé ay la ko. waaw ci mbirum politique bi nga nekk nii man Aline Kese dafa may faj. yaa ngi ci Aline Kese. yow kooku daw naa ko waaye lu bees laa lay ñuy sacrifice ci élection bi leen jàpp ñii di yóbbu ay tànku xale ñii ay boppu xale bàyyiwuñu sax dox bi bu dox ci boppu xale bi mu yóbbu ay këram yow tam loolu dafa ñaaw gis nga sama waa ji ci dama koy dégg mooy daas daas waaw na jeex. yow mooy ñu suñu jàmm boo jeexee da ngaa war a jeex ndax amoo si nit yow dereeta la tey. lépp takku ñu di ngeen góor. yow mooy ñu suñu jàmm moom jiwkat bu mag nga yow. mooy sànq ba nga yuuxoo njugub laa la tege de yaa njugub teg teg. ah man njugub laa. sacrifice kay xam nañ ñu koy def. <laughs> ma ne sacrifice rek. ñii daas xam naa leen. ah waaw waaw waaw wax nga dëgg ndax ñii daas yaa ñoom yéen a nekk. yow bu dee daas dégg nga ma de boo demee bay def sacrifice sacrifice sa doom waaw. contraire nga waxe eh? ba sa bop ndax sa cër yoy non dafa gudd ba baga de mënon nga ci dag sacrifier du deug ci man ak tane fal la man man yow neexo waxat ah, gis nga yow yow lay waxal kan. gis nga ki bebo nga maytu ndax billahi bi nga xey yow sa bop bi dem gis nga ki ak ñi may andal ñep ci sacrifice rek ci leen def ñun yalla dañu dimbali ñun wa ma sha Allah yow mané nga may ma sama jam yow yow nga xamné sacrifice nga def yow da ngay sangu par guddi di naan par guddi loolu doyatu la. xoolal par guddi léegi maa ngi lay dégg ngay daaw. oui ma loolu mayatuma la sax nga ko wax. Oh, eh may ma sama jaaw ngay jëkk waa koñ bi dégg ma yaakaar ni man damay def ay sacrifice. sacrifice kat nga ndax ku la gis ak sa kanamu looy bi nga xam ne vrai sacrifice kat nga. man ma sacrifice. ma ne sacrifice nga. eh wa waaye yow waxal yow. ah yaa ngi jëloon yow daa yaa ngi jëloon mbéy mi. yow moom seytaane nga yow. yow yow xool maa tey. yow xool maa tey waaye. <laughs> waaye yow non may dul may dul man distance bi lay suuraale. yow déggoo ma de. distance bi lay suuraale. déggoo ma de virgule du ma la ko may wiiri. kan mooy wiiri man wiiri. yow bu ma wiiroo de. yow sa sacrifice bi ngay def. du man si man lañ la déggal moo tax nga may tiim di ma mool waaye mënoo maa mool. waaw réew mi duñu wax. wiiri rek. aw daaw laa lay. aw daaw laa lay jaay léegi yow wax saytaane nga yow. maa tey yow saytaane maa tey. ku ne la say naa la wax. déglu ma fi ku la gis xam ne ma bu dee ma sa tëstal ñu wax. merci rek yow moom yàlla bu la. yow eh yow divorce sama amitié man ak yow divorce. waaw divorce naa yow dama jàmm man. yow moom yow moom nekkee fi nii rek. maa tey bis bu ne ngay ponkal te nit ñi duñ xam la moo tax ngay ponkal. ndeketewoo da nga ne sacrifice waaw. mais bu ma la wax dara. yow may

waaw baax déglu ma fii ambulance nag mu ngi lay wër dibi si bi may ñu suñu jàmm te nga dem. yow xaaral ay wax day doy. lii nag sa baaraam yi sew. xaaral rek ma wiiri yow benn kiri daal. yow ma wiiri rek nga yaakaar ma xam la. su ma wiiri rek nga yaakaar ma nga la. waaw yow li dégg yow. damay wiiri. ay kii nga lay